bëgg a yokku oui dama gis un peu de contradiction par rapport ak li mu wax. contradiction oui parce que parce que parce que il demande nee amul benn parti mu mën a dem élection sans une coalition il refuse que l'ASP soit dans la coalition de la Benno Bokk Yaakaar c'est-à-dire man ma moi j'ai un problème nous l'AFP seeyalul boppam biir Benno Bokk Yaakaar dafa bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar. nekk ci ginnaaw nekk ci ne non j'ai dit bokk ci biir coalition benn. daf ko seer à refuser d'avoir un candidat. comme Serigne non pas dit amu leen par exemple dem nañu élection. am gars yu wax ne dañu bëgg a génn. soit que ñoom ñu ne ñoom loolu seeyal sa bopp la bu fekkee. amul candidat seeyal sa bopp Pa Malick Pa munoo accompagner nit. de ba nga ne dangay génn dem wuti candidat su boobaa da ngay succédé wu sur le plan politique. non non non dañuy waxtaan rek non non non dañuy waxtaan dañuy dañuy waxtaan rek dañuy waxtaan rek aujourd'hui mm. aujourd'hui AFP mënul accompagner Macky de ba mu ne day génn wut candidat lan lay wax sénégalais yi. pour yow c'est pas logique. c'est illogique c'est-à-dire politiquement soo ko defee succédé wu nga xaru nga da nga xaru sur le plan politique qu'est-ce que tu vas dire aux logique bi li mu bëgg mooy nga continuer accompagner ko maintenant di travailler à que nga am un candidat consensuel pour conserver un pouvoir mais su nekkee da ngay politique moom su nekkee AFP wala wala PS wala keneen dafa xalaatoon ne dafa waroon génn ba Macky Sall ba président Macky Sall la waroon génn barke bi wu parce que une élection présidentielle ça prépare il un temps pour préparer une élection présidentielle ça se prépare durant cinq pendant cinq la ñuy préparer élection présidentielle du sept mois du huit mois du ñun en tant que coalition Benno Bokk Yaakaar élection 2024 yi cinq ans 2019 la ñu commencé préparer l' présidentielle de deux mille de de de 2024 yi di ñëw. d' accord